aoudu billahi min asheytaani irrajim bismillahi irrahmaani irrahim wassalaatu wassalaamu ala asrafi almursalin sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabiahu bi ihsan ila yawmiddin bokk di leen ñu leen di nuyu di leen di ziyaare del siwaat ngeen seen émission jotaayu xam-xam comme ni ko baaxoo defee émission bi nga xam te nag moom la ni euh, mujjee def ñu ngi yemoon ci astaghfirullaha min jurmi wa min zalali wa min kabairi asami wa min lamami tey jii nag bayit yi lañ leen indi muy yeddi warjili li maa yuxzil fata bi gadi tajni wa tamsi fa yaa xam yi wa yaa nakadi lakin atuubu ila rabbil wara samadi astaghfirullah mimma qad janatuhu yadi min alxataaya wa mimma axdamat xadami xad saa'ani gaflati wa qubqu maa amilat kafi wa maa min jamiam saay xad tarakat fa xultu lamma rada nafsi gadan xasiyat astaghfirullah mimma lam takun kasabat waaw foofu la ñu yem léegi mu ni yedd yi keroog fi nekkoon mooy euh, nopp bi ak bët yi tey nag ñu ngi ñëw a ci loxo bi ak tànk bi moo tax mu ni yedd yi sama loxo bi sama loxo bi euh, war a jël yi ak sama tànk bi li maa yox dir fataa ci loo xam te day gàcceel nit rek bi xatin ci ëllëg moom ci lay ci lay nekk di ko def sama loxo day def loo xam te ni yàlla araamal na ci ñun ñuy ñu di ko laal wala yeneen ak yeneen sama tànk tamit day dox ci loo xamante ni yàlla bëgg ko moo tax suñu tubaab day wax ni wala taxut ta otamu sama yokkul mu xaram fi sariya dina ma kii maanaam sa loxo bul ci bind baa nga laajte loo xamante ni dañ ko araamal ci sariya euh, yonent bi sallallahu alayhi wa waaye mu ne wax mu waxaat feneen si biir rijlay ni la xaram bal bii ma sa ñaari tànk yi bul ci dox ci yoo xamante ni ay caaxaan rek la waaye boo ciy dox dox ci loo xamante ni daal lu am solo la waaye di dox yoo xamante ni yàlla da ko araamal ci ñun ñu di ko dox loolu lay tere moo tax mu ni tëj nii dafay def maanaam loxo bi dafay jëf day def yoo xamante ni yàlla da koo bañ watam si tamit dafay dox tànk bi moom day dox loo xamante ni amul benn njariñ ay caaxaan rek la yu mel dem ay soirée yeneen yu demee comme ni ko nit ñi si biir jamono moom lay wax kon nag mu ne fa yaa xam ni woo naa sama ñàkkare waaye waaye naka de naa sama coono parce que loolu lépp ay coono mu ne nag làkkin waaye nag. ba loolu amee yëpp tamit teewul atuubu matuub ilaa rabbil wara jëm ci borom mbindeef yi sama di moom mi nga xamante ni mooy sama kilifa tey kilifa ñëpp buur astaghfirullah kon daal maa ngi jégalu yàlla min maa li nga xamante ni xat janatuhu def na ko yadi sama loxo minal xataaya ay ñawtiif wa min maa ak li nga xamante ni ax dama dox na ko xadami sama tànk maa ngi jégalu yàlla ci yi nga jëf yu bon yi nga xamante ni sama loxo def na ko waaye ak li nga xam te sama tànk dox na ko te loo xam te dox ko ci loo xam te ne lu yàlla bëgg la loolu lay wax maa ngi ciy jégalu sama borom mu ne kon xat saa ani naqari na ma xaflati sama sàggan man daal sama sàggan jii ma nekkee lu ma naqari na lu ma naqari la lool ba xubxumaa ak bonub li nga xamante ni amilat jëf na ko sama loxo bi maanaam bon li nga xamante ni sama loxo maanaam li ay loxoom jëf te yàlla bañ ko loolu daf koo naqari ak sàgganam loolu lu ko naqari la lool te mënu ci dara mu ne wamaa min jamiati saayi ak mbooleem sax loo xamante ni mbooleem jëf yoo xamante ne xat taralkat bàyyi na ko te ko def maanaam ma naqari na ma loo xamante ne waroon na koo def waaye daf koo mujj wax mu ne kon nag looloo waral fa xultu ma wax lamma rada ba nga xamante ni lamma ba nga xamante ragal na nafs yi sama jëmb ji man ar rada alkaane xadante lëpp astaghfirullah mu ne kon maa ngi jéggalu yàlla mimma ci li nga xamante ni lam takun kasabat euh, nekkul di ko jëf maanaam li nga xamante sama loxo bi da ko waroon a jëf te jëf ko maa ngi koy jégal sama ak wom ka ka loxo moom leeral fii mu ne wama ak li nga xamante ni iktasabat sax fàgg na ko li nga xamante ni sama loxo da koo def te waroon koo def maa ngi koy jégal sama borom fii mam la xol ba fu xalaat yem rek man maa ngi koy jégal maanaam lu di xalaat rek pour sa jàpp loolu bu ko defee suñu borom na ko man daal maa ngi wax loolu di sàkku sama njégalu suñu borom ndax nit ki yenn saa mu dëkkee di def yu bon ak yooyu tax xamul ni ëllëg yow man xiyaam lépp suñu borom indi na ko ba teg wa kullu shay'in ahsaynaahu kitaaba loolu la yàlla wax te tamit bisub yow man xiyaam boobu mooy bis ba nga xam te ne yow ma yanzurul mar'u maa qaddamat yadaahu wa yaquulu yaa laytanii kuntu turaaban boobu la leen di xam la xamante ni jëfoon jëfoon na ko ci ci kanam kon mbokk yi fi leen yem ak yéen seen émission jotaayu xam-xam di rafetlu ba tey dem ñi nga xamante ni ñooy suivre seen émission bi jotaayu xam-xam gis nañ ko commentaire yi am na solo leen soññ rek ci ngeen abonné ci seen bii di Faaida TV su ko defee ngeen gën ñoo yokk njëriñ. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.